الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله mbokk julit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala mbooli mi xéewal ci moom la jóge kenn yeyoowul ñu koy jaamu ku dul moom kenn yeyoowul jàngale nañ koy jaamoo ku dul yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di dénk ngeen ragal ko sax ci loolu ba dee fekk leen ci gannaaw loolu mbokk julit xam leen ni bokk na nattu bu yàlla nattu ay jaamam mooy mu génn ci ñoom ay seytaane seytaane yoo xam ne ay jinne lañu duñu leen gis ak seytaane yoo xam ne ay nit lañu ñu ngi dund ak ñoom te loolu amul kenn ku ci mucc suñu borom mu ne mboolem yenent yi fi jaaroon boole naa leen ak ñaari noon yooyu seytaani jinne yi ak seytaani nit ñi yi nga xam ne dañuy joxolante loxo ku nekk ci moom di dimbilee sa moroom ay wax yoo xam ne waxi wor la suñu boroom yàlla subhanahu wa taala leeralal ñu suñu téere bi ne ay yéen doomu aadama yi am ngeen noon bu mag boo xam ne gisu leen ko noon boobu day tëral na moom it aw yoon woo xam ne ca la bëgg ngeen jaar ca waaye ngal la way bu leen topp yoon yooyu xam leen ne seen noon bu biir la mbokk lépp loo xam ne day jëme ci mooy yàlla xamal ne seytaane moo ko jàngal jaami yàlla yi loolu tax na ba suñu borom avertir ñu seen bàyyi aadama day mi ngi nii ñu yóbbu ko biir aljanna lu la neex defal lu la neex waxal fu la neex demal lenn dong laa la tere mooy garab gële bu ko jege waaye seytaane yemul ci fexe ba aadama jege garab ga waaye yóbbu na ko ba mu jege ko yóbbu ko ba mu lekk ca mook soxnaam sa loolu mu lay won ay pexeem lu rëy rëy la te fam jaar aadama bari na nee na ko lii boo ko lekkee doo dee ba faw lii boo ko nekkee malaaka ngay nekk lii boo ko lekkee dootoo génn aljanna nax yooyu mu naxoon sunu bay aadama moom lay sax di nax njabootam ba ilaa yawmi diin yal na yàlla musal ñu ci sunu borom yàlla kon nee na noonu la fitnaa la sunu bay génne ko aaya ya nga xam ne ñëw na ca bari lool seytaane bu ñëwee ci doomu aadama la muy jëkk a sàkk ci moom mooy fexe ba génne ko ci diine ca loolu réussir na ca li ëpp ci ñuy dund tey ci kaw suuf génn nañ ci diine yàlla ji gannaaw boobu ñàkk ci mucc dana leen woo ci ay bidaa na am ñu jàpp ne dañuy jaamu yàlla waaye nu ñuy jaamoo yàlla mooy dañuy teg fii sunna yonente bi alei salatu wasalaam topp bidaa ya cheytaane taaral ci ñoom gannaaw loolu mu am ca ñoo xam ne ma nga leen yóbbu ca bakkaar yu mag ya ca mu bokk ci bakkaar yi gën a mag ci yooyu mooy seen xol ña ngi koy wékk ci keneen ku dul yàlla ci bu ñuy yaakaar keneen ku dul yàlla la ñuy yaakaar bu ñuy dimbandiku ci keneen ku dul yàlla la ñuy dimbandikoo mbokk li lépp pexey seytaane la waaye sunu borom yàlla ci yërmaane gi mu am ci ay jaamam mu leeralal leen yoon woo xam ne day buñ ca jaaree dana leen mën a musal ci ayu seen noon bu màgg boobee noon boobu nga xam ne suñu borom nee na nañ ko moytu ndax mi ngi woo mbooloo ngir ànd ak ñoom dëkk ca sey ca sawara bu ñuy wax sair suñu borom yàlla xam ne ne ñun ñu lompañ lañu suñu borom yàlla xam ne nii suñu noon boobu pexem bari na te mi ngi ñuy gis ñun dañ ko gis looloo tax mu tëral ay yoon yeneen tam ba sallallahu alayhi wa sallam tëralal ñu ay yoon yoon yoo xam ne nii buñ ca jaaree suñu borom yàlla subhanahu wa taala musal ñu su ko defee képp koo xam ne bëgg naa mucc ci loolu wareefam mooy mu xam ana lan mooy la nga xam ne moom la yàlla jàngale ab yonentam jàngale ko ci ne lii kat mooy muccale ci cheytaan bi njëkk ci loolu mbokk julit mooy nga la waay sa xol bi aj ko ci yàlla jalla wa ala amul kenn kuy jël xolam aj ko ci yàlla ba pare yàlla di ko seetaan muy sooy abadan ngalawaay del muslu ci musloo ci sa borom di làqu ci yàlla amul kenn koo xamee ni nii dem na làqu ci yàlla bi nga xam ne mooy sa borom di borom cheytaan ba pare cheytaane bi di am ci yow pexe tey jii mën ngaa gis benn waay jiital xat boo xam ne berger allemand mën na daaneel ay ponkal heure bu xat bi réeree jëm ci yow la gën a nekk xel mooy nga wax borom xat bi teel sa xat bi ndax bu naan ko toogal muy toog waaye di nekk naan da ngay xeex ak xat ba su ko defee yow da ngay xam ne cheytaane ki pexeem lu muy bëri bëri pexe yàllaa ko bind yàllaa ko sàkk kon nga làqu ci yàlla sàkku yàlla subhanahu wa taala musal la ci moom suñu borom yàlla nee na amul benn pexe bu cheytaane am ci ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla di wékku ci moom keroog ba cheytaane bàkkoo ci kanamam na ko sa jaam yi yépp dinaa leen ngalaab yóbbu leen sawara borom bi dana ko demal sama jaam yi ma gëm wékku ci man day dara nga mënul ci ñoom borom bi nee na ko wékku ci moom dana ko doy ca it mooy ka nga xam ne lépp moo ci am kattan sunu borom yàlla ne heure boo xamee ni nii seytaane jaxasal na sa xol ngir bëgg laa bàyyiloo la yàlla faratal ci yow wala bëgg laa xëcc jëmele ci la yàlla xaraamal ci yow nga la waay gaawal muslu ci seytaan ñaan yàlla mu musal la ci moom lii de da ngay gis ne da ngay daal di doon koo xam ne kuy gindeeku nga waaye mbokk gannaaw wékku ci yàlla wékku gu wér xamal ne dara munta mucc na ci cheytaan lu raw mooy nga jàng dénkaane yàlla yi waaye jàng tere yàlla yi taxaw ci dénkaane yooyu bàyyi tere yi heure boo ko defee yàlla sàmm la moom la yonent bi alayhi salaam dénkoon abdullah ibnu abbas ne ko ay yow xale bi kaay ma jàngal lay kaddu wartul yàlla rek yàlla wartu la wartul yàlla mooy lan mooy yàlla jox na la ay ndigal wattu ko ba def ko yàlla jox na la ay tere wattu ko moytu ko lii boo ko defee yàlla subhanahu wa taala naka noonu daal di lay wattu loolu moo tax ba ngan la way booy wékk wékkul ci moom booy ñaan ñaanal ci moom booy xettilikul xettilikul ci moom waaye gannaaw loolu mbokk julit suñu borom yàlla wàcceel nañu ay musluwaay di ay zikr yoo xam ne képp ku ko takkoo seytaane du mën ci yow dara ay yéen góor ñi ak jigéen ñi xam leen ni zikr yooyu bokk na la ca gën a yomb mooy kaddu gu gàtt lool ca mooy bismillah bismillah mooy dox diggante doomu aadama bi ak seytaane yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na waa ji génn këram bam ñëwee di dugg daa di wax bismillah cheytaane dana wax ñi mu àndaloon say boo kot ngeen dëpp kii moom këram gi du kër gu ñuy fanaan tey heure boo xamee ni nii ba muy lekk nee na bismillah cheytaane dana wax ñi mu àndal say boo kot ngeen dëpp kii lekkam gi tey kenn du ci mën a jot amma heure booy dugg sa kër waxoo bismillah jamono da ngay lekk waxoo bismillah cheytaane day wax ne kay leen am ngeen fu ngeen fanaan am ngeen fu ngeen añe wala fu ngeen reere yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne lii dox diggante awray doomu aadama ak cheytaane yi mooy mu wax bismillah tàmmalal sa bopp booy summeeku nga wax bismillah rawatina boo jëmee ca douche ba ca cabine la wala sangukaay ya waxal bismillah ndax ñoo nit place yu sabewoo yi lañ gën a bëgg waaye heure boo jëmee ca douche bi ne bismillah cheytaan yi dootuñu mën a gis lenn ci say awra loolee da ngay gis muy leneen loo xam ne dafay lënkaloo ak lum mën a doon nga la way doomu aadama xamal ne lépp loo xam ne yaa ngi ci jëm daal di wax bismillah cheytaane moom sori na la ci loolu lii tamit mooy mbir boo xam ne dañ ko war a bàyyi xel askar yooyu ñu sax ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam mi ngi ñuy jàngal ci ne képp koo xam ne ba ngay tëdd day dangaa jàng ayatul kursi yàlla dana la booleeg malaaka boo xam ne mooy taxaw di la garde benn cheytaane du la jege ba baa suba di jot ak yeneen yoo xam ne nii bokk na yi ci gën a gàtt mbokk la ñuy tuddee al muawizaat nga la way tàmmalal sa bopp heure boo jullee ba pare nga jàng qul huwa allahu ahad qul auzu bi rabbil falaq qul auzu bi rabbin nas bu ne nga jàng ko benn yoon bu doon te ne fajar la wala timis bu ne nga jàng ko ñetti yoon te xamal ne day yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul kenn kuy saxal loolu lu dul yàlla dana ko aar ci seytaane yi dana ko aar ci lépp loo xam ne day ragal mu lor bokk na ci loolu mbokk julit mooy seytaane bu ko ragal fu bari fi mu fii ne doomu aadama yi sànni seen xol ay tiitaange kii naan damaa ragal jinne damaa ragal faru rab damaa ragal kaza wa kaza mbokkoo bul ragal seytaan seytaane amul pexe amul kattan lu dul lu neex yàlla jalla wa ala bul ragal ku la njabar sunu borom nee na wama hum bi daarina bihi min ahadin illa bi izni allah tous les njabarkat bi monde nit ak jinne buñ daje woon mënuñu laa def lu dul yàlla tudd loolu tax borom bi ne ni ngal la waay innama zalikum shaytan yuxawifu awliyaa fala taxaafuhum wa xaafuuni in kuntum muminin seytaane dina jéem a sànni seen xol ba ngeen ragal la nga xam ne mooy ay farandoom na doon jinne ya ngeen gisul wala nit ñi nga xam ne ñooy njabarkat ya wala caaxaankat yi mbubboo mbubbu cëriñ di leen tëkku suñu borom ne nee na bu leen leen ragal ragal leen ma su ne nekk ngeen ñoo xam ne ñu gëm ngeen looloo tax jurit di war a lënkoo loo xam ne yonent bi alayhi salaam nee na trésor la denc bu rëy la ci denc aljanna muy la hawla wala quwata illa billah kenn amul pexe ak kattan ku dul yàlla lii jurit bi la lëngu ak lii dootul ragal kenn wala muy ragal lenn lu dul loo xam ne dafa bawoo ci yàlla jalla waala ndax day xam ne la hawla wala quwata illa billah hadis boobu ñu wax sànq ba yonente bi alayhi salaam day dénk ibn abbas bokk na lu mu ko ca waxoon bu doon mbindaafun yëpp dañoo daje woon bëgg laa lor mënuñu laa lor lu dul loo xam ne yàlla da koo tuddoon ci yow kon ñu nam ko ak loolu di bari di wax la hawla wala quwata illa billah yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne ne koo xam ne ba ngay génn sa kër wax nga bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwata illa billah nee na ku wax kaddu gi su boobaa day dañ naan ko yow day aar nañu la fegal nañu la ci bépp chiyatin boo xam ne nii fekke woon na wax joojee fu mu gisee seytaane bu la toppee dinaan ko bul sonn kii mënoo ci moom dara loolu kon mbokk ñu bàyyi ko xel di baril di ko wax ay bismillah ak la hawla wala quwata illa billah yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal mi benn zikr boo xam ne njëriñu adduna la ak njëriñu allaxira ca loolu la wax mu ne képp koo xam ne da ngaa xëyoon nga ne laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shayin qadir nee na bu dee wax nga ko téeméeri yoon ci benn bis ca bu doon da ngaa toog benn place concentré wu bala ngaa def dix minutes loolee dana daal di mat nee na day lala cay dikkal ci tuyaaba moom dana bari lool bal nee na yow bis keroog boobee kenn munta def jaamu yàlla gu gën a màgg gi nga def xanaa lu dul koo xam ne dala ëppale waaye bokk na lu mu ca wax mooy loolu dana nekk lu lay aar ca la nga xam ne mooy seytaane ci sa gis boobee kon nga la waay mi ngi noonu di ngëneelu àdduna ngëneelu àllaaxira ñu góor góorlu bañ koy manki bus bu nekk góor ak jigéen xoolal ban julli ngay gën a am jot gannaaw fajar gannaaw takkusaan ba baa gannaaw gee nga toog wax téeméeri yoon la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shayin qadir mbokk li nga xam ne nii nekk na yii yëpp mbir la yoo xam ne boo ko saxoo yàlla dana la musal ci seytaane yi dana la musal ci njabarkat yi dana la musal ci ñi lay iñaane dana la musal ci ñi lay pexeel doonte ne yii yëpp daa jar ban koy wax nga xam li ngay wax lu mu doon waaye nga gëmit la ngay wax lu mu doon ca mooy gëm ne lépp mi ngi ci loxoy yàlla jalla wa ala bi ngay wax bismillah mooy yaa ngi sukkandiku ci yàlla ay ci turu yàlla ngay sukkandikoo yàlla moom nga xam ne ku sukkandiku ci moom mu doy la loolu kon dañ cee war a sax bañ a doon ñoo xam ne ñu saggan lañu waaye it bañ a indi luy yàq loolu bokk na luy yàq loolu mooy def say askar ba pare daa di dem nag ca toolu seytaane seytaane ku dem ci toolam wala nga ñëw ci këram lu la fa dal yaa ko teg sa bopp ca bokk na ca xutuwaati seytaan muy bakkaar yu mag yooyu nga xam ne moo ko tëral ay yéen jaamu yàlla xam leen ni asamaan ak suuf ci loxo yàlla la nekk xam leen na lor ak njëriñ ci loxo yàlla la nekk xamal ne kenn mënu laa wattu kudul yàlla xamal ne kenn mënu laa lor kudul yàlla kenn du la ñoddil la nga yaakaar kudul yàlla kenn mënu laa xañ la nga nekkee kudul yàlla yeneen ci yàlla bi gënoon a baax ci ay jaamam yàlla waxloo na ko ci téeram bu tedd bi ne ko neel mbooloo mi ngay woo moomu lu ma leen lor moomu lu ma leen njëriñ lépp luy lor ak njëriñ ci seen loxo borom yàlla la nekk lii moo tax ba ñu war góorgóorlu delloowaat suñuy xol ci yàlla yàlla moolu nga xam ne mi ngi ñuy woo anak ñun ay rendez-vous yoo xam ne farata la juróomi yoon ci bis bu nekk waxumaa nag yeneen ya nga cooberewu waaye juróomi yoon suñu borom moo la jox rendez-vous ay yow mi nga xam ni dangaa jaaxle sa jaaxle jàpp ne kat naa dem ca sëriñu tariyaax bee ak caayam bi tilim jee mën naa régler samay problème nga dem mu lay sarxeloo lu kenn xamul bu ngeen nekkee ci jàkk yi façon sarax bu ne da ngeen ko gis te en général quatre vingt dix neuf pour cent de ñoom ñoo xalaat génn sarax yooyu ay nit ñoo leen koy wax lekk seenub xaalis ba pare nag ne la demal def li ca jàkka ja demal jox lii koo jëkk a dajeel demal sànni lii ci digg mbedd ma ila axiri waaye mbokk julit yaa ngi am juróomi daje ak sa borom fajar tisdaan takkusaan timis géey taxaw ci kanamu yàlla na ko yàlla iyaaka naabudu wa iyaaka nastain yàlla yow dong lay jaam yow dong lay dimbali ko ngam la waay boo amee problème ak sa borom kër toogal ci kanamu yàlla moomu diis ko sa problème soo amee problème ak sa soxna toogal ci kanamu yàlla yooyu diis ko am nga problème ak sa directeur de service am nga problème ci say tukki am nga problème ci say kayit sa examen sa lu mën a doon am nga cinq rendez-vous yoo daje ak sa borom toogal ci kanamu yàlla dellu ci moom xamal ko ne yàlla kenn amul pexe kattan ko dul yow yàlla di may bind sama biiru yaay kenn dimbaliwu la yàlla li nekk ci xéewal yaa ko ci def yaa may dundal li la neex yaa may rey li la bu la neexee yaa may dekkal bu la neexee ay yàlla maa ngi wékku ci yow mbokk julit bi xam lii wallahi dana tekki luy béjjëne ki cur sànni ci àll ba wallahi dana jël bijëli yaka bàyyi bàyyee woon ki maam sànni ci àll ba lépp loo xam ne nii ay pettaw laa ki nangam dana ko jël sànni ci àll ba daa di doyloo njàppam doyloo taxaw ci kanamu boromam bàyyee boppam boromam jalla wa ala loolee nekk ci moom yiwu adduna nekk ci moom yiwu alaxira loolu mbokk da ngay gis mooy li nga xam ne war nañ ci bàyyi xel donte ne malheureusement yàlla ngi ñu nattu réew moo xam ne nit ñi jàpp nañ ne seetaan télévision ak déglu rajo moog añ ak reer a yem loolu bépp télévision ak rajo tey ay buxaaba ñu ngi fa bóof di jàngal nit ñi ne xam nañ seen kumpa xam nañ nu ñuy régler seen i problème xam nañ nu ñu leen di waxe seen ëllëg li bëri ci doomu aadama yi jëm jëm ci ñoom ñu bëri ci doomu aadama yi gëm leen moom nga la waaye déglu leen wax yu leen tëba sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku dikkal ab seetkat wala képp ku dikkal ab xamkat mu wax la dara nga gëm ko ku mel noonu day xamal ne weddina la nga xam ne dañ koo wàcce woon ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax bokk na la yàlla wax waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy laa yuzhiru ala ghaybihi ahada yàlla nee na sama kumpa duma ko xamal kenn kon heure boo demee ci nit mu lay war a xamal sa avenir weddi nga ayi alquran yooyu ngan la waayi fexe leen aar seen bopp aar leen seen njaboot su ngeen bëggee dund gu dal dund gu tey fexe leen bañ a bokkaale ak seen borom suñu borom mu ne alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al amnu wa hum muhtadun ñi nga xam ne ñoo am sécurité ñoo am jàmmi àdduna ñoo am dal xel wallahi du milliardaires yi du nit ñi siiw yi wala président yi waaye mooy jaam yi nga xam ne bokkaale wuñ ak seen borom dara xéewal gu ñëw ñu xam ne yàlla la lor gu ñëw ñu xam ne yàlla doo ko mën a teggi ñii nag ñooy ñi nga xam ne ñoo am ak dal fexe leen sax ci jàngal ko seeni njaboot jàngal ko seeni doom moytaloo leen li ñuy dégg ci rajo yi ak télévision yi te xam ne ay wootekat lañ ñu jëme ci merum yàlla ay wootekat lañ yu jëme ca sawara yal na yàlla sàmmal ñu suñu diine yal na yàlla sàmmal ñu suñu dund yal na yàlla sàmmal ñu ba ñu dee ci ngërëmam yal nañu yàlla musal ci shayatin al insi wal jinn yal na yàlla rafetal la nga xam ne mooy suñu mucc yal na yàlla wàcce jàmm ci suñu réew yal na ko wàcce ci mboolem réew yi nga xam ne dañoo nekk ci ay guerre yal na yàlla subhanahu wa taala delloo pexe yii fiiri ca seen kaw yal na yàlla yëkkati jullit ñi delloo leen seen diine gën jaa rafete delloo yal na yàlla barkeel suñu ndaw ñi yal na yàlla sàmmal ñu suñuy mag ñi ci ëllëg ci sibir mu dañu lañu fii firdawsi l aala اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين